cuuraay yaa ngi fi house spray yaa ngi fi waaye foundation yi anañ ana powda yi qualité Getzner fii nag la am ci Westfield qualité Getzner nëbuwul maa ngi ni kuy nëbbatu du ko wax mu ngi ne fanga ca kaw nag koolaat 753 4495 25 00 124 ñaari nomba yi boo ci oo ñu uyu la xale yaa ngi fi koo laaj mu waxal la ah qualité Getzner and more. if you did and work in washington state you can apply for the new working family tax credit and if you qualify you can get up to $1200 yes beginning for february 1st 2023 you can ask for the new tax credit if you qualified this not the local tax credit where the governor of washington state dey give it different from the one where the big government they give. It different from the one where the federal government they give. This no program war for grow we economy. Not to lend, not to trust that they trust you. And this not to something where they go use against you for where they go for any immigration benefits them. What do you they tell them? They go keep them for you safe and they go protect them for you. Even you know they can work, you can receive the money. If you want to know more or you want to get post where they help you, contact Wawak. Thank you. na foofu séeréko lu la bëgg na ko séeréko coow li bari na foofu séeréko coow li bari na foofu yaa may yaa ana yaa may って properly. ndaw yi ñun fans club yi Serekunda ñoo moom youth si moo ko tax a jóg ñëw dimbale ci youth si looloo ko tax a jóg comme nag jot amul te xat-xat dafa am mu bàyyi soxlaa bi ñëw pour nuyu mbooloo mi Mr. Honorable Minister, please can you ñu ngi nuyu ñëpp Uh, Minister, understand it's a busy schedule, but we are very, very happy for your presence here because nit ñi xam nañ ne Gambia ak youth si ak the future of the youth moo itil moo tax ñun fuñ la gisee dañ laa bëggee di la kontaanal te di la ñaanal yàlla foo bugg a jëmee youth si ak Gambia yàlla nañu fa yàlla aagale di kontaan sa présence so ñu fi nekk yëpp ñu ngi leen a won ne honorable minister busy schedule la am a very busy schedule waye buñ ko waxé ne mu fexé mu agsi fi fexé na agsi fi so ñun tam dañu dañ ko éwi légui parce que euh, jëmukaay dañ bari so ñu ngi wax ñëpp welcome to Serekunda and the fans club Serekunda keep it up Gambia is ours and Serekunda is our concern Assalamualaikum warahmatullah. wa rahmatullah wa yaakaar la de Amadou suma nijaay bi comme ni nga ko waxee la so ministre ñu la welcome di la dalal सिक्योरिटी की Thank you. ambiance amul toog ambiance amul toog I am

Olha eu tenho que wa rahmatullah kamara mang lay nuyu borom bés bi. waaw ah, waaleykum salaam Amina ñu la laa ah di la gërëm di la santa di kontaan ci la kii wu rafet bu nga bu nga boone ka def ni wa dauda kamara bés bi ne kilo nga ci do ci libar caaya bu mag nga ci am amulo ci tubéy wa ku la ci ba mag nga jël dauda bés bi noo ko ak noko organisé ak ñana ñan ño nek sa gannaaw di la jappal ah bés bi bés bi la ci def ak sant yàlla di gërem suma wajur a ah, di wax ne bi bési Serekunda la ndaxte i ndaw mu ko ñoo ñoo ko organise initié ko jaglel mako xalaat gi Anta ñay la joggi ak haritam gaay waxtan si d'accord ci cadre dajale lu am oote def ko lu melni ñu ngi gis ne li dal jaratu di wax ne bégal suñ bopa gis ne lu nga am ne dal yoon la nga am ñu taxaw gis ne li Gambia ñoko mom ndawi ñoko mom di sante ñëpp ndaxte bu mu xewee benn tey daal kenn toogatut ndaxte suma jigéen suma mag Hadi kamara jamono ju nekk maa ngi gis suma boor ndey ndaw it maa ngi ko siy jàpp gërëm bu baax a baax a baax Ablaye Ablaye Ndiaye it gis naa taxawaayam su ma si wooree lipir naa dinaa juum waaye wax dëgg ne ñu ngi siy ñëpp di si sant ñëpp di si gërëm autorités yi nga xam ne ñëpp ñu ngi ekkale seen téléphone di ñu xool di leen gërëm si bés bi bu baax a baax a baax. waa dafa mel daal. lépp luñ ci organisé pour delloo ko yuut si la delloo ko askan wi dafa mel ni delloo ko askan wi ndax yuut si ñooñu tax a jóg kon soo la déggee daal jàppale xale yi ndaxte ñun suñu réew lañ buga kon daaw de bés bi daal ñu ngi la see gërëm di la santale ak sa team am nga sa organising team am nga sa manager waaye ñu ngi ñaan ñu commencé ko ci bismillahi rahmaani rahim jekkale ko si alhamdulilahi rabil alamin bés bi nag am nañ ci ay gan yu bëre honorable minister of youth and sports Bakary Badji bàyyi na soxlaam yëpp ñëw loolu mooy ñoo woon ne mu ngi ci gannaaw xale tey mu ngi ci gannaaw xale ëllëg kon ñu koy gërëm di ko sant moom ministre baa Badji waaye Daouda ñan nga bugg a gërëm ci bés waaw gërëm bi bés bi maa ngi ko commencé si yow ndaxte lii bu mu xewee seetuloo ne ñu Elvin yaa ñu mag bépp fu ñu dem wax ne ñu ne Oumy éega na ngi jël sa doole sa énergie sa xalaat di sa crédit te noonu la si ñëpp mel ah di gërëm suma jigéen ñi Ami Jammeh si doom si former président bi bu mu lii xewee benn tey wax mu ngi siy mu ngi siy jàpp torop comme ni ñu la ko waxalee si gaytaay sport bi wax dëgg ak ne yàlla ñëpp a ngi siy jàpp bu baax a baax a baax di jégalu waa provinces ñëpp fu nekk la waay di nekk di jóge di kool ndey ndawit wax dëgg ak ne yàlla gërëmaane bi yëpp moom la ba si bi soo gisee mu toll egg moom la di gërëm Anta Ndiaye Hadi Camara it gërëm nañ ko bu baax a baax di gërëm wa Serekunda daal ah, duñ bugg ñoo compter ndaxte buñ rek dañuy jiib ndaxte ndaw yi dañ ko moomal seen bopp mbor yi yëpp ñëw nañ ñëpp bàyyi seen liggéey ñëw doole si seen li jël seen xaalis jël seen doole di ko si ak artistes yu xam ne ñëw nañ yëpp ak kilifa yu nga xam ne ñëw nañ si jotaay bi ministre Bakary Badji Essa Fall Ibrahima Tabora Mane ah, Talib bi gërëm nañ ñëpp daal si bés jërëjëf ak Mariama Sow suma waa koñ maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax Baboucar Sala muy Serekunda community police wax dëgg ne yàlla taxaw nañ si bés bi bu baax a baax ba gis ne dara dara dara dara manqué wut te benn fitna amul si bés waaw daaw da ñu ngi laa gërëm di la santaan ndax xale nga te xale su loxoom setee mun a bokk ak mag yi xam nañ ne mun nga sa liggéey yaa yëngu ci politique yaa ngi yëngu ci business ak yeneen yi activités yi waaye xam naa ne youth si ñaanal fi nga bugg a àgga bi yal na la fa di la sant ak di la gërëm ak sa waa tim waaw ma jàll ci keneen daal ba ci kanam jërëjëf. waaw di maa ngi gërëm Sow ndaxte wax dëgg ak ne yàlla lii bu mu xewee oo ma taal mu toom ñu daje mu yónnee doomam ekkati ha ekkati xaalisam te borom kurus la ku nga xam bi yëpp a ko soxla. di ko si gërëm si gëstu bu def noonu war ne bu nekkuloon dëj bu mu am dina fi ñëwal boppam di gërëm suma waa kër Sëriñ kër Sëriñ di Maolana Seen Seet di gërëm Seen Basir Kebe di waa Nelul Huda yëpp ndaxte bés yu wane nañu bés yu bon na ko ndaxte lii ku ko ku ko ne lii am na ay kilifa yu nekk si gannaaw di lañ gërëm bu baax a baax a baax kilifa yu nekk si dëkk bi yëpp jërëjëf Oumy jërëjëf kontaan nañu bu baax a baax a baax. ñu koy ndey ndaw borom ndukumaan sandeene bolom faramaareen bi suma xariti xool bi démb la yàgg tey soog a ñëw doomu ndey yaa may ak jaañ ndey ndaw bés bi doo liibar kilo ga ndey maa lay nuyu la siyaare maa laa fay ah, la jaajëfal di kontaan si bés bi di kontaan si bés bi ah, di ñaanal daaw da soom bi yàlla na ko defal jaama daaw da ku baax la te suñu xarit bu yàgg tey waaw léegi moom nag GDC la nekkoon mu jógee fa bu ko def mouvement léegi xale yi ñoo ko ubbil mouvement defal ko fans club léegi ñu ngi koo ñaanal li tax muy def li yàlla ko si yàlla jàppale mais fu mu bugg a aaga daal yaa nga aagal ko fa ñu ngi koo gërëm di gërëm ñëpp ñu uyu si ñëpp ñu uyu si ñëpp ñu ngi leen di gërëm ñëpp bàyyi wuñ kenn ñëpp lañ gërëm gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp bàyyi wuñ kenn ñu ngi gërëm ñëpp bàyyi jërëjëf pare na waa ndey gis naa ne daal fans club bi jaax ba nga ci bu baax a baax gunge xale yi daaw da nag xolam loxom set na parce que xale bu loxom setee mun a bokk ak mag yi ndab léegi nag comme nag delloo ko askan wi la gis naa yuut see ko tax a jóg waa di ko ñaanal nag lim sumba yal na ko daan di ko ñaanal yéeneem yal na mut di gërëm waa Serekunda waa Ibo Town ndey jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la sant <laughs> jërëjëf Maimouna Dramé maam Matar ma xariti xol bi nuyu naa la ziyaare naa la Dramé Kandji Faramareen fay naa la yaa Omi di kontaan si interview bi may def nii bés bi ñu sawar si lool yaga ko waajal ngir Daouda kamara mu nekk youth moom movement boo xam ne waa Serekunda waa Ibotam ñëpp a ngi ci biir ñëpp bunta la boo xam ne dafa ubbeeku pour ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm Ndey Ndaw ñoom yaa Awa yaa Omi ñoom Anta Ndeye Fatou xale yi Serekunda ñëpp di gërëm ñëpp rek waaw bàyyiwuñ kenn suñu limee rek jim waaye bàyyiwuñ kenn di gërëm ñoom Ngees ñoom Lay Njaay ñoom Mbay Koor di nuyu ziare ñëpp daal bàyyiwuñ kenn na suñu limee rek jim bàyyiwuñ kenn gërëm nañ ñëpp. waaw gis nañ ne daal bés bi neex na bëri na nit femme ambiance bi neex na ala daw me na te suma doom a ngi fi woon di Mor Waly Faramareen bi ak Abdou Khadar ak kili bi ay kibem bi yëpp Cheikh Fall daal mu ngi ambiance borom caaya waaw waaye nag DJ DJ eh, kii gisuñ ko de DJ DJ ba gisuñ ko de num tuda ah? Choice FM DJ Pandi ñëwagut Cheikh Fall lu mu tege mu ne parce que dafa mun ambiance waaw lu mu rek mu ne kon ñu ngi koy gërëm moom it ñëw tegal nañu lu ne kontaan nañ daal bés bi dañuy ñaan yàlla rek ah yàlla ñu jàmm ci jot luy bi nii waaw waaw baax na jërëjëf Maimouna Darame gërëm nañ la sant nañ la maa ngi laa nuyu Faramareen bi suma rakki xol bi suma goro di la ziyaare di la laaj sa wàccuwaay Anta nuyu naa la fay naa la yaaw mi yaa si jàmm bu ya maa ngi nuyu gars yi sant suma xarit yi ñi nga xamante dañ gars yi dañ ma taxawu kontaan naa trop si ñoom taaloon nag bis bii moom dafa ala daw mee te ñu ko ñaanal loo xamante affaire si da gën yokku moom la ñooy ñaan yàlla te ñaan nañ ko yàlla te dina am incha allah mécanisme wax na bëggum mu bari te dama sonn yàlla nga waa Anta gis nañ ne bés bi ala na de parce que ministre Bakary ba bam ñëwee bàyyi soxlaam yaxaay nelawam jaay lalam ñëw jàppale Daouda Camara fans club bi pour yuut dafa mel ni daal sotti see def si la delloo ko ndaw yi daal moo ko tax a ñu ngi ñaan yàlla fans club mu jëm ci kaw ci kanam Anta guddi gi noo ko gisee nit ñi uyu si nañu de. 300. nit ñi moom aussi nañu bu baax man sax foogal naa ni comme fi àgga waaye loo rek dañoo gëm yàlla kontaan nañ trop moom si nit ñi si seen taxawaay yi waaw ñu ngi ñaan nag na gën yokku si kaw si kanam loolu la ñaan yàlla daaw na yàlla wéram ay cëram guddal fanam Anta jërëjëf gërëm nañ waa Serekunda ak team bi yëpp jërëjëf Anta booy ki ne maa ngi lay nuyu di la siyaare di la laaj sa wàccuwaay nuyu naa la siyaare la bu baax kontaan nag si yow di la fay lii moom lii ngeen def moom neex na ndax koñ lii moo koy dundal ñuy ñaanal nag Daouda lépp lum yootu ak ay àndandoom ak ay xaritam lépp lum yootu yàlla na ki jot ci barke Seydina Mohamed ak ñoom nday ndaw ñoom yaa awa yéen ñi ko yéen daal yéen ñi xalaat lii daal bés bi neex na kontaan na lépp doy na neex na daal roñ siir na kontaan nañ daal baax na ñu ngi lay gërëm waaw ñu ngi laa gërëm mama Kine ndax yow mu munoon ngaa wax ne yëfi xale la bàyyee ko xale yi waaye da jàppale sa doom depuis ci liggéey bi di ci bi organisé bi yëpp yow da yaay xale yi nañ la sant la di la ñaanal nga yàgg fi lool te wér ba xale yi teral la jërëjëf kontaan nañ ci yow jërëjëf waay. déedéet xeebu ma ko. nuyu naa la siyaare naa la tur bi. naa la Mariama laa tudd. Mariama Sow Mariama Sow Pulo Jéeri maa lay nuyu di siyaare Mariama noo gisee bés bi. ah xanaa kontaan rek ndaxte daw na ku la suma brother la suma xarit la ñoo bokk benn kër wante du def dara te waxuma ko ndax dëgg time def te fekk ma nelaw waaye tey moom moo ma ko jaral ma toog ba time bii nii ku baax la wax dëgg neex yàlla ah ñu ngi gërëm équipe bi yëpp ak groupe bi ak waa Serekunda parce que kontaan nañ parce que ministre Bakary Badji bañ ko ko waxee dafa jaay lalam jógee airport tukki rek ñëw kon mu ngi mel ni delloo ko askan wi moo ñu tax a jóg te gis nañ ne nit ñi uyu si nañ ñu gërëm nañ waa Ibo Town Serekunda fu waay di jógee gërëm nañ la waaye sanse ga li nga sanse dara. jërëjëf yow it sanse yaa ngi nice <laughs> ma ne yaa ngi nice. aleykum salaam nuyu fay naa la naka nga def. waa tur wi. Hadi Hadi laa tudd Hadi Camara. Hadi Camara yile. sanse nga yal na yàlla rafetal. Hadi guri gi noo ko gise bés bi daal xanaa kontaan kontaan torop di gërëm Daouda bu parce que kontaan naa ci moom taxawaayam rafet na waaw man nag moom suma wax bi du sori waaye kontaan naa te di di jaajëfal yéen tamit ngeen xam ne teewee ngeen bés bi nii di ko jàppale si bés kontaan naa ci yéen tamit yéen ñi ñëpp waaw waaye jërëjëf. xadi li nga dara feyu ko waa ana waa bu sumbaala waa bu sumbaala sigil ma waay meer mbaxal meer mbaxal dama koy génne nii mbaxal bi ko waa ami jàmme ji lanka ami li nga sanse dara fay ko na de ami def nga yëfi garaandaam nuyu naa la ziyaare naa la loolu kontaan si torop torop moo tax ma teewu si bés ami li nga sanse dara fay waaye gërëm nañ la parce que Busumbala ak fii dafa sori nga sa nelaw ñëw sanse ba mbaax parce que defante dawra ami ñu ngi lay gërëm di la sant jërëjëf sa teewaay waaye sa doomi ndey doomi ndey kama ami jaame ami jaame siyaare naa la nuyu naa la maa nuyu di siyaare waaw maa ngi laa delloo ziar ñu la jaajëfal ami guddi ko gisee Dawda moo la tax a jógee bu ba fii nga def buloo rek samsa nii ñëw felaale ko ami guddi ko gisee waaw ah guddi eh, gi moom macha allah di kontaan torop waaw ndax am tanka mooy dox mbooka am ki organise programme bi xarit lañ waaye tey mbooka lañ waaw ñu kontaan torop pour ñëw uyu si ko jàppale ko si programme am bi ah macha allah programme bi moom jaar na yoon waaw neex na bëri nit lii lañ si doon séntu waaye macha allah ëpp loxo waaw di si kontaan rek. waaw di ko ñaanal jàmm yal na yaaga ak dëkkandooram yi ak am yuut sim boot yal ko si yàlla jàppale yàlla jemale ko kanam ak ñoom yàlla may leen juboo ndax lii mooy toogaay toogaayam ak yut si su ñaawoon tamit fii du doon mel nii waaye rafet rek a tax fii mel nii tey di ko sante yàlla lu bëree bëri di leen jaajëfal yéen itam. ami kontaan nañ ci yéen nuroole bi macha allah yal na yàlla laf cap jërëjëf waa bu Sumbala gërëm nañ leen sant nañ leen waaw ma ñëw ci suma boppa man umi yaay waali man balaago du yaat ma maria sin may sa biige daagu daagu degen mbaay ku rafaal ak degen man la joor may suma maam moor waali di suma doom namu mu saala yaay ndeer luñ na mëntu toogantu ko xanaa ma wax lii Daawda Camara di sama rakk nag ku baax ku neex a àndal koo xam ne gom na boppam parce que yuut si moo ko tax a di ko ñaanal guddi gi yal na ko def ay guddi guddi guddi yu bëree bëree bëri di ñaan képp ko am na ñëw nga fi yal la yàlla defal jàmm di leen ñaanal yéen TV bi tamit seen liggéey si kaw si kanam di ñaanal mbaykoor Njées Fam di ñaanal ñëpp képp koo xam ne ñëw nga fi oncle Ablaye Adams fàttewuñ ko benn yoon ak oncle Diin ñu ngi fàtte oncle Nikul ayuma kenn di leen ñaanal Ndey Ndaw. yaa may daraame yaa awa jaañ maa ngi ñaanal ñëpp aate suma raki xol yi waa Ibo Town Serekunda ñaanal ñëpp di leen santa di leen gërëm di ñaanal Anta Ndiaye ak groupe bi di ñaanal waa Daare Lamp Fall di ñaanal ñëpp jàmm guddi gi kontaan nañ ci waaw wasalaam jërëjëf jëf waa TV nee na joole na xaramaareel nga doo daw de waaw nee na sama bi moom nee

and Chiru Chaguganjakayu Washington State. Tepanki Pichan, the Working Families Tax Credit. Uchiba Jeju, Bukalukun Chamu Mene a tip copy, Umile Nangisent Gitabu Chamna Babu. Wow! Koye kajoti ti pilipi, pilipu wali pika mbipi, gunungu baki, pili February, gunungu baki, 2023. We mom, Washington State, chundi puwole, betendebi. Chit pisiyang, America. Unchamu ichidiba tiat. de ka nora no ta sika ta ko ka ci kachi ko wina bokul te tendi bi ci nem lemp nem lempat a chipur ba nyam bitendi bi we kana ba nat a chipur ba mekun ne tu fosa barany pur putin kokul upur putu chak upepu yaka chim ngalp me ko njentwe natalegi don wawak gitab kanyen guwant gitab guwant kenyeng gitab gu guwant nan tab o kurubu kultingi gibakir gitab kenyeng pajnyo long gu kuwas gu tab paj na kuwas nolong